ak président régional yi naa ko waa jàppoo li tax ñu génn tey jii mooy foire yi ñuy def ci dëkk bi ci jamonoy korite jamonoy tabaski ci la commerçant yi dajaloo di fotaat li ñuy am di fay taxes di fay patente di fay juut yi loolu moo tax ñu ne début di ramadan balaa demi di tabaski bu kenn defati foire ci dëkk bi su passé nag ñu organiser foire yu ko bëgg a foire nga foire mais kenn ku foire mais Aline moom mooy seul maire Euh, Thiès Ouest bi xam ne moo sonal commerçant yi sonal dëkk bi ñuy ñaan nag ñu jëlee ko fi defal nu délégation spéciale ndax waxtaan nag moom ci jàmm ba tàyyi mu tël moo tax moom mooy may autorisation yi di ko may benn société privée buy def foire moo tax ñu bëgg léegi ñu mu bàyyi ko bàyyi ko autorisation yëpp génn nañu Thiès yëpp génn nañu li ñuy wax commerçant yi mooy li fekk bi arrêté wul fii tabaski bu kenn fay juuti bu kenn fay bataan juuti bu ñëw ci benn marché wala kenn kuy fayu bataan su ko délégué yi ne génnal génnul na woo président départemental Thierno Ciss mu woo délégué yi marché yi nekk Thiès yëpp nu jajal ñu génn leen bu kenn fayati benn taxi li fekk ñu ngi foire ci dëkk wul kenn du di ko tas na fay tudd di délégué marché Moussante ci municipal bu Pape Diop maire est ca bokk waaye lii Alioune Sow di def dañ cee tey bokkuñu ci ëllëg ànduñu tey ànduñu ci ëllëg ndax ay jigéen lañ di daan suñu doole ci marché yi Dakar Marseille bu tabaski ñëwee ñu jël suñu bagage exposé bu korite ñëwee ñu jël suñu bagage exposé Aliou Sow dox suñu diggante dëkk bi jël may mun a sàmm favoriser ko di ko utiliser foire loolu duñ ko ci bàyyi tey duñ ko ci bàyyi ëllëg luñ ci góobe gar macam musa tagaja na lama